What up guys? What up guys? What's up everybody? So I'm a guy. <laughs> yeah, before going further, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa. Rio City, my town. <laughs> so my guy, my pap J, Ibrahim Ndao, Mustafa Mane. Dagout from Belgium, Abakar Diallo from Russia, his eldest Mel Diallo. di ko may amul daam jaan ceeb di ko maanaam ñeme salon di ko boy boy milo boy toog fii xaalis gi lay wut di ko may gars yi TV yëpp on le fal sikkim bu ñaaw bon tey sama gars yi je the parler tey de Sonko Cheikh Anta ak Mamadou Dia c'est quoi la différence quoi sama benn gars moo ko jox Ibra Sonko quoi moom nee na euh, boo gisee tey jii maanaam Sonko réussir fii euh, Cheikh Anta Diop ak euh, Mamadou Dia échoué mooy maanaam Sonko dafa am dafa yem ak jamonoy média quoi dafa yem ak jamonoy média parce que média dafa am doole tu parce que tey jii boo seetloo ñële bu njëkkoon boo déranger système bi Senghor day jël Mamadou Dia wal kenn du wax dara Euh, Abdou Diouf jàpp euh, Ablaye Wade wala kenn du def kenn du def dara parce que boobu noonu donc booleen jàppee ça va pas s'ébruiter maanaam tey ji euh, presse du wax média du ci wax benn soleil moo fi nekk nekk benn journal national léegi affaire bi du ébruité wu léegi lañ leen tëj ñu perte mais na fi tey ji média fekk fi benn benn YouTube ah mooy réseau internet yi mu nekk un un boo xam ne tey ji un plus parce que tey ji même su fekkee sax Macky Sall loolu la nand ah xam na ne tey ji Ablaye Wade média yi ñoo ko daaneel parce que comme mu la naqari da ngay dem ay Walfadjri nga daw gars yi teg affaire Macky Sall moom comprendre ne média dafa ne média dafa am solo trop moo tax mu jënd gars yi jënd ñëpp mu baa mott ku ku ku Sonko 31 décembre dootoo am aide de la presse parce que xam ne média dafa am doole tu vois léegi Sonko appui boobu la am tey ak internet bi internet bi moo ko yóbbu troisième tey et pourquoi pas même passer deuxième pourquoi même pas pas deuxième parce que tey ji euh, dara wóolu ñu jëlu deuxième parce que tey li ma ko waxee toujours résultats yi c' est des résultats parce que ministre bi gënoon na 58 pour cent la tu vois ministre bi gënoon na 5 ñooy dem élection donc loolu buñ ne ma Sonko newul deuxième sax wala Sonko nekkul présidence ma du ma ko parce que tellement affaire jaarul yoon fichier bi baaxul ñoom lu leen nax li ñuy tu vois man loolu laay wax gars yi naan ay pour Sonko candidat YouTube bi candidat da ko ñu koy sant yàlla parce que YouTube bi YouTube may na tey ji maanaam tey TFM amul audace wane lu RTS amul audace wane ko ji YouTube mi ngi wane beneen appui mooy lan euh, Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop ñooñu bi ñuy ñëw fii ñoom comprendre nañ ils étaient en avance sur leur peuple comprendre nañ mais amuñu woon le soutien du peuple Sonko dafa am le soutien du peuple maanaam dafa ñëw yee ñi peut-être ñële seen intelligence euh, dañ dañ ils étaient man peut-être ñoom yeewoon mais tasuñu ko si nit ñi Sonko nag dafa ñëw yeewu ba pare def la propagande maanaam de cette intelligence la propagande boo xam tey ji mooy wane changement bi. yaa bi nag suivre moo leen ne bi ñàkk ñoo mës a yeewu mais dañu amul woon ku ku seen patriotisme dañuy ñàkkoon maanaam ku leen ay veerum yëpp pour ñu mën a gis parce que dañu leen loolu mooy différence bi tu donc Sonko l'appui boobu la boo xoolee tey ji yu bëri mënuñu ko def. bu doon euh, Sonko lu muy def ni bu doon jamonoy Abdou Diouf la créé nañ ko bu ba sànni fële kenn kii mënu si moom dara bu doon jamonoy Abdoulaye Wade peut-être mën nañ ko créé tëj ko jàgg na ni mais fu mu ne nii boo ko laalee mooy loolu tout ce coulé bi Abdoulaye Idriss Seck doon wax mooy boo ko laalee da loolu la loolu loolu la kii loolu la gis moo tax mu bàyyi Sonko mu toog noonu mooy toogee tu vois donc loolu la laa ma lu may moo si si Sonko tu vois parce que am nañu liberté d'expression parce que mooy la may wax rek bu njëkkoon amoo fitu dem soleil di fa wax Abdou Diouf la ko metti wala Abdoulaye Wade amoo fitu dem tey jii dem si euh, euh, kii di wax ay ay opposant dañ lay jël kii la wala affaire mais léegi nag am na ñoo xam ne tey sont des vendus mais n'empêche que am nañu ay ay Walfadjri tu vois ay Sa Ndiogou maay xam ne tey ñu ngi si page bi boo demee ji pencum patriote gars yi ñu ngi parfois léegi génne nañ bu bees ñu ngi def euh, la parole aux militants gars yi ñooy tànn militants yi ñu bëgg ñu wax ñu wax ak diaspora xam ne tey ku nekk yaa ngi def live ay moodu moodu xam ne chaque jour chaque jour ñu def ay live lépp ndax ngi bëgg Sénégal donc loolu c'est un apport donc bu ñu jaglelee candidat internet là on est très content loolu noonu parce que gis nañu résultat bu ñu jox kon ko yóbbu nañu troisième à l'élection nemmeeku tur mu def ko ba tey ji maanaam euh, ñu récolté ay bu ko fàttee la fal xolleeku donc ñun dañu gën a jàpp noonu nangul nañ candidat internet boobu ngeen ñu wax te ba le 24 juin di xam maanaam euh, réseaux sociaux ban njëriñ la am waa Pastef sama gars yi doo toog sama kanam bu ñaaw génn temps yi amul bëri waxuma lu bëri ci Sonko parce que wax waxaat la rek ñun wax nañu lépp suñu programme c'est ñun tey ji mënoon nañ noppi vingt ans bañ a wax sénégalais amul lañ leen lu leen wanul bu doon jamono yontu mën nañ xar nañ weer bi doxloo garab ya dékkal mbëtt mi léegi nag le dernier mot revient au peuple sama gars yi loolu wax doo ko la sama njëbal chaque jour bëgguma toog ma wax ci Sonko même remarqué ngeen temps yi tamit ne pas communiquer tamit pour te yëpp yëpp yëpp yëpp maa leen maa leen di bëggee